abonnez sur notre chaîne Dahiratoul Fadly abonnez sur notre chaîne Dahiratoul Fadly Dahiratoul Fadly kuñ fornome war ngay sant Yàlla ñun lay tijil kasalada sidi baram أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم alhamdulilahi waxda wasalaatu wasalaamu ala man la nabiya baad wa ala alihi wa asxaabihi wa man wala rabbi shrah li sadri wa yasir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli ixwaani fillah asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bokk ñu bokk yàlla kii seen soppale ci yàlla abdul ahad moo desuwaat di leen nuyu di leen ziyaar di leen tatagal di leen baalu xaq di leen baal xaq di ñaan yàlla boole ñu jéggal bokk ñu bokk yàlla mu mel ni tey al yawm yawm alxamis tey bisab alxamis la 26 euh, sul qiadati ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru digg wi ñu nekk di diggu tabaski wi atum 1444 atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñeent hijriya ci gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di légier al mu dëppoo 15 juin euh, atum mu dëppoo fukk fan ak juróom ci mois de juin bii ñu nekk atum ñaari junni ak ñaar fukk ak ñett ci milaadi isa alayhi salaam ci juddug saydina isa alayhi salaam bokk ñu bokk yàlla ñaar fukki fan ak juróom benn dafa bokk ci li ñu fàtt yi kon tey ci alxames ji rëfatul alxames ju nekk nag sunna la ci ku ko man nga ku koy dem ba di ko def soo ko day def soo ko mënee nga jiital boo waree alxames teg ca bis nga jiital bis teg ca alxames ndax sunna la ci ku ko man ngay alxames bu jot nga woor ko wala altine bu jot nga woor ko waaye soo koy def bu fekkee danga ngaa woor alxames nga teg ca ajjuma su fekkee ne danga ngaa woor altine nga teg ca talaata wala soo wooree soo bëggee woor altine ji nga woor maanaam dimanche teg ca altine wala soo bëggee woor alxames ji nga woor àllarba teg ca alxames ja ngoog bokk mi bokk yàlla eh, kon tey rafetut buñ waxee rafetut nag moom lépp loo xam ne da ko bëgg a def rek moo xam da nga bëgg a tukki moo xam da nga bëgg a tàmbali dara moo xam da nga bëgg a daloo moo xam da bëgg da nga bëgg a def lu mën di doon ginnaaw tey bis bi dafa fat rek euh, euh, nga wattandiku ko mooy li nga xam ne mooy li gën kon tey ci alxamis ji dafa fatt euh, rafetut maanaam min ilmin laa yanfau allahuma yow buur inni naka man audu dinaa muslu eh, bika ci yow min ilmin ci xam boo xam ne laa yanfa du jariñ yooyu yàlla maa lay ñaan nga ci xam-xam boo xam ne du jëriñ xam-xam bu du jëriñ amul njëriñ xam-xam ba ci gën mooy bi lay jëriñ ci sa adduna waaye di la jëriñ ci sa alaxira waaye sàkku xam-xam boo xam ne amulu la benn njariñ fii ci àdduna waaye amulu la benn njariñ ci alaxira boobu xam-xam amul njariñ yàlla ci yàlla musal ñaan gi jaaroon na fi bañ defal ci ay waxtaan yu bëree bëree bëri kon yàlla nañu yàlla defal xam-xam buy jariñ xam-xam buy jariñ nag bokk na ca muy xam-xamub alquran bokk na ca muy xam-xamub diine bokk na ca muy xam-xamab suñu borom di al ilmu xaqiqi di maarifatu billah waaye bokk na ca xam-xamu adduna boo xam ne dana jëriñ ci sa adduna nga mën a eh, soppandiku ci sa adduna mën a liggéey ci sa adduna moo xam xam-xam mën di doon nag moo xam mbay la bay ci àll ba la wala xam-xamu menuisier la wala xam-xamu mécanicien la wala xam-xamab jàngale la wala xam-xamab Euh, euh, tabax la maçon maçonnerie genre xam-xam yooyu yëpp lépp bépp mécc boo xam ne xam-xam ci la tënku rek euh, bokk na ci xam-xam yi nga xam ne dafay jariñ ci àdduna ndax dana la jariñ sa àdduna ndax bu dee sa mécc di sa xam-xam nga di ca liggéey di ca am lañ cay am di ca dund di ca dundal sa njaboot loolu boobu xam-xam xam-xam bu am njariñ la bu baax a baax a baax a te yonent bi waxoon na ne man yàlla bëgg na waa ju am métier yàlla bëgg na waa ju am métier waa joo xam ne dafa am métier yonent bi nee na yàlla bëgg na ko suma ma juumul addis ba def na woon inna allah yuxibu arrajulul almuxtarif maanaam waa joo xam ne dafa am métier yàlla bëgg na ko eh, ci loolu am na benn waay boo xam ne dafa mës a liggéey liggéey liggéey liggéey ba loxo bi pënd xam naa boo demee am maçon la woon wala mu nekk ab baykat wala mu nekk koo xam ne daal euh, liggéey ba muy liggéey moom loxo ya day taq euh, yonent bi ñëw fi moom tàllal ko loxo mu téye loxoom maanaam yonent bi daje ak moom ko loxo mu téye loxoom mu ne ko ah lii nag mu ne ko sama loxo bi dafa taq te maa taqal sa loxo bi yonent bi téye loxo bi ne ko haza yaddun yuhibbuha allahu wa rasuluhu allahu akbar haza yaddun yuhibbuhu allahu wa rasuluhu daan na ko loxo bu yàlla bëgg ak ab yonenteem day mu ngi nii muy loxo boo xam ne dafa liggéey ba ba poussière loxo bu liggéey ba pënd loxo boobu day yàlla bëgg na ko ab yonenteem bëgg na ko yooyu yëpp yontu saa di ñaax nit ñi ci maanaam liggéey bañ a benn métier lépp loo xam ne métier bu dagan la rek ku jóg rek eh, nit ki war na ca jéem a def itte ba man cay am loo xam ne ci lay sàmm diineem waaye ma sàmm ca ngorom moo gën nekk ci yeneen yi moo gën di agressé moo gën di sàcc moo gën di di di moo gën nekk ci yeneen yoo xamante ne bi du loolu di jaay loo xam ne yaa ngay jaay dorog wala ngay jaay yenn xeeti tux yi nga xam ne dafay mànd nit hmm, yooyu yëpp nga fexe ba am mécc mu lew Eh, di ci dund di ci dundal sa njaboot loolu moo ko gën eh, moo tax yonent bi salaa salaam waxoon ne xaysa yaddun yuhibbu allahu rasul lii da loxo la bu yàlla bëgg ak ab yonenteem bokk ñu bokk yàlla kon bokk ñu bokk yàlla bépp xam-xam boo xamante ne bii rek nit ki mi ngi ci yëngu muy xam-xam boo xam ne xam-xam bu dagana bu dagan la mi ngi ci yëngu moo xam xam-xam adduna la waaye mu di ci yëngu di ci am lu muy suturoo ci addunaam di ci am lu muy suturoo moo ko njabootam di ci am lu muy terloo moo ko njabootam di ci am lu muy jaamoo suñ borom tabaraka wa taala boobee xam-xam buy jëriñ la adduna waaye xam-xam buy jëriñ la eh, bokk ñu yàlla kon bokk yi ñaan gàngoogu jaaroon na fii ñu ngi ñëw léegi ci xadis bi xadisul yowm qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة ala ma kaana min al amal hadis bi al imaamu muslim moo ko solo bokk ñu bokk yàlla bokk ñu bokk yàlla yonent bi sallallahu dafa wax ne man shahida ku seede ne an laa ilaha amul benn buur illallahu ku di yàlla kenn du buur ku di suñ borom tabaraka wa yàlla mooy buur bu màgg bu tedd bi mooy maalikul mulk mooy buur bi nga xam ne moom moom nguur mooy buur bi nga xam ne képp ku am nguur moo la ko jox moom suñu borom tabaraka moo tax moom rekk mooy buur mu ne waxduhu moom dong la sharika déet ñu koy bokkaaleel loxoo ñeel ko yàlla amul dara luñ koy bokkaaleel wala kenn kuñ koy bokkaaleel moom suñ borom yàlla daal yàlla la qulillah waxal yàlla rek suma zarhum fi xawdim yal'abun waxal yàlla rek yàlla daal yàlla la rek waaye wa anna muhammadan nga seede it ne wa anna muhammad naka muhammad sallallahu alayhi wa sallam abdullahi jaamab yàlla la muhammad jaamab suñ borom la mu saxalal ko al ubudiyatu yàlla la mis nga yontu sallallahu alayhi wa sallam yàlla kere ba mu koy woo fa moom ca riñaan ba jaam la ko tudde moo tax jaam garaat bu foor la maqaama bu foor la maqaama ubodiya maqaama mu foora foora foora foora foor la moo tax yàlla wax na ko ci alquran ca suratu isra yi subhaana alladi asra bi abdihi laylan min al masjid al xaraami ila al masjid al mu ngoog jaam la ko fa tudde ba koy riñaane kon nga seede ne Muhammad jaamu yàlla la waaye nga seede ne Muhammad ndawal suñ borom la maanaam yàlla moo ko yónni ci mbindeef yi wa ma arsalnaaka illa kaafatan linnaas la ko yàlla wax dama la bin yónniwuma la lu ci mbooleem mbindeef yi la yàlla yónni yontu bi sallallahu moo xam nit la moo xam jinn la moo xam malaaka la moo xam lu mën di doon rek lépp luy mbindeef rek yàlla yónni na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca kooka moo tax mu ko ma arsalnaaka illaa kaafatan linnaas ngoog kon yonent tu sallallahu wa sallam ndawal suñu borom la tabaraka wa taala eh, mu ngoon noonu waaye nga seede na wa anna isa abdullah waaye nga seede na seydina isa moom it jaamab yàlla la seydina isa du yàlla seydina isa du doomi yàlla yaayam du yàlla nga seede ne moom jaamub suñ boroom la tabaraka wa taala moom Isa alayhi yàlla na Isa jaamub suñ boroom la kon yàlla mi ngi démentir nasaraan yi nga xam ne dañ ne Isa mooy doom yàlla yàlla démentir na leen yàlla nee leen li ngeen wax du dëgg li ngeen wax wérut waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam it démentir na leen na leen li ngeen wax wérut moo tax mu ne wa anna isa abdullahi nga seede na isa jaamab suñ borom la tabaraka wa taala waaye wa rasuluhu tey ab yónnanteem isa it yónnante suñ borom la ndax bokk na ci yónnante yi moom isa bokk ci ulul azmi yi ngoog waaye yemu ca wa kalimatuhu di kaddoom isa kaddug yàlla la lan lu tax ñu ne isa kaddug suñ borom la tabaraka wa lu tax ñu wax ko maanaam insa du tax ñu ne kàddu suñu borom tabaraka wa taala euh, ndax insa ba yàlla nam ne maanaam amal insa dafa wax rek kun fa yakunu mu daal di nekk loolu moo tax mu nekk kàddoog suñu borom tabaraka wa taala ci wax ji nga xam ne wax na ko ne ko kun fa yakunu mu daal di nekk moom sayyidna insa wa zalika innahu wujida wa kaana bil kalimati kun dafa nekk bi ko yàlla ndammee daf ne daf ne Isa kun rek Isa daal di nekk te loolu suñ demee ca alquran alquran moo ñu xamal loolu eh, ca suratu ali imran baada ausu billahi min shaytan rajim bismillahi rahmani rahim inna masala isa inda allahi ka masali aadama xalaqahu min turab suma qaala lahu kun fa yakun mu ngoog yàlla mu ne inna masala isa inda allah ka masali xalaqahu min turaab suma qaala lahu kun fa yakun allahu akbar yàlla nee na misaalab saydina isa day dafa mel ni misaalab saydina adama alayhima salaam yàlla mu ne xalaqahu min turaab adama maa ko ci suuf suma qaala lahu topp ma wax ko ñeel ko kun nekkal fa yakun mu nekk isa it kazalika ni ko noonu loolu la yàlla jëfandikoo ci moom na kun fa yàkkoonu Isa daal di e, e, e, nekk moom la suñ borom tabaraka wa taala di wax ci sayna Adama ba tey fi aqi Adama fa Isa sawaytuhu fa nafaxtu fii min ruuxi fa qawlu saajidiin ca suratul xijri noonu it la ko waxee ci saydina Isa wa fi xaqi Isa wa ruuxun minhu yàlla nee na Isa ak ruuxam ruux bu tukkee ci suñ borom la yaani yàlla moo bind ruuxu saydina Isa alayhi salaam Eh, ne ko kun fa yakunu mu daal di nekk loolu moo tax ñu naan eh, wa kalli wa kallimatun eh, wa kallimatuhu di kaddoog suñu borom tabaraka wa taala moo tax ñu ne wa kallimatuhu muy kaddoog suñu borom subhanahu wa tax ñu ne Seydina Isa wa di kaddoog suñu borom alqaaha ila maryama yàlla moo ko sànni ci sayyidatuna Maryam wax nañ ne sayyidatuna Maryam dafa nekkoon jigéen joo xam ne jigéen ju sell la nekkoon jigéen joo xam ne yàlla da koo tànnoon ci nisaayil alamin ci jigéeni jamono inna la astafaaki wa tahaaraki wa astafaaki la nisaayil alamin la alquran wax yow saydina mm, saydatuna Maryam man yàlla maa la tànn ba noppi laabal la waaye ba noppi ma tànn la ci mbooleem jigéen ñi adduna ñu wax ne nisaay alimiha maanaam bu ñu waxee lool nag ñu ne maanaam jamonoom mbooleem ku fa nekkoon jigéen rek saydina saydatuna mariyam moo la gën moo la gën a moo la gën a sell moo la gën a laab bi nga xamee ne nag moom da beru euh, amoon pakkuusam boo xam ne jàkka la man nga ne jàkka daa jaamoo suñ borom tabaraka wa taala dafa wéetal yàlla nga xam ne léeg-léega Seydina Zakariya ko fa fekk waaye léeg mu ñëw bu seet Sayyidatuna Maryam rek fekk fa ay fruits yoo xamante ne bi kenn xamu ko ci jamono jooju maanaam période fekk fa banaan ci période boo xam ne kenn xamul na banaana du du ñor ci période yooyu wala mu fekk fa orange ci période boo xam ne orange du ko ñor wala mu fekk fa mandarin ci période boo xam ne mandarin du ko ñor wala mu fekk fa maanaam tàndarma ci période boo xam ne tàndarma du am su ko defee su ko laajee ne ko min ay min ay na lakki mu ne ko min indillah inna allah yarsuqu man yashaa bi xayri hisaab yow sayyidatuna Maryam lii foo ko jëlee ah, Eh, mu ne ko eh, lii de maa ngi ko jëlee ci suñ boroom ndax yàlla kat moom mooy wërsëgal ku ko soob ci lu mu di la xisaab lu dul mu di la sonnal moom suñ boroom tabaraka wa taala sayyidatuna Maryam moomu nag kere bi nga xamee ne suñ borom tabaraka wa taala nam mën a koo nam mën a koo may doom dogal doom ci moom wax nañ ne dafa dem ca déeg ba di sangu walla ca dex ka barab bu ndox la woon mu dafa sangu bi mu sangoo ba noppi nag ci la gis kuy ñëw góor guy ñëw mu naan ko indi a'uuzu bi rahmaani minka in kuntu taqiya man ne maa ngi musulu yàlla ci yow mi nga xam ne mooy aji yërmande degam ko ragal yàlla nga am na ñu wax ne taqiyan googu mu ngi ci jublu degam ko ragal yàlla la am ñu wax ci mu fasiroon ne taqiyan ak góor la woon benn waay la boo xam ne dadaa agressé jigéen ñi di leen siif léegi nag malaaka bi muy ñëw wax nañ ne melakaanu taqiyan moomu moom la yore moom Seydina Jibril moo tax bi ko Seydatuna Mariama séenee rek mu ne ko inni a'udhu birrahmani ko in kunta taqiya ngoog am na ñaar riwaay yooyu yëpp ñëw na ñii nee na taqiyan ndegam ko ragal yàlla nga ñii ne taqiyan genn góor la goo xam ne dadaa eh, dogale jigéen ñi di def ak ñoom naka su dul noona sayyidatuna Maryam nag ba ba fa tamassala laha basharan sawiya la alquran wax fa tamassala fa tamassala laha basharan sawiya gis ko jibril bi ñëw dafa dafa dafa dafa dafa dafa mel ni waaw ñu ne jëmmi taqiyin jooju moom la jël moo tax sayyidatuna Maryam wax ko loolu inni a'uuzu bi rahmani minka in kunta taqiya waaw ñëwee nag eh, ci la ko ëf ruu bi ko suñu borom tabaraka wa taala jox yàlla na kun rek sayyidatuna Isa daal di nekk say eh, sayyidina Isa daal di daal di nekk sayyidina Isa yaayam daal ko ëmb wax nañ ne ci saase la ko ëmb matu ko ci saase imbi ko ci saase am nañu wax loolu am ñu ne ne ëmb na ko comme ni jigéen ñi di ëmbe maanaam eh, doom am ñu wax lu wuuteeg loolu waaye lu mën di xaw rek yàlla moom baatu kun la jëfandikoo ci sayyidina Isa moo tax ñu ne eh, wa kalimatuhu di kat doom di baatab suñ borom tabaraka wa taala bokk ñu bokk yàlla moo bi mu ko ëffee ruugi rek eh, moom la alquran wax na walati ahsana farjaha fa nafana min ruuxina fiha min ruuxina wa jaalnaha wabnaha ayatan lil alamin inna hazihi ummatukum ummatun wahida wa ana rabbukum faabudun wa taqatta'u baynahum bay kullun ilayna raji'una ca suratul lan bi ngeen jégal ma nag bu jomte amee téeru ma wax naa leen téeru ma téere bu ci njomte amee rek ngeen jégal ma mu ngook suñ borom ne walati asan farja ka nga xam ne dafa ñoŋal pëyam kon jigéen ju nekk war naa roy sayyidatuna Maryama sayyidatuna sayyidatuna Maryama dafa ñoŋal pëyam kon loolu moo lay na ne la moom njaaloowut kon ñi nga xam ne dañoo am ay arrière pensée di wax ci Seydina Insa ak digganteem yaayam naan góor moo ñëw siq ak moom waaye du malaaka wax yooyu wérut du wax yu dëggu du wax yu wér waaw da gis sax ñoo xamante ne bii maanaam dañ koy dañ dañ koy wax seeni taalibe waaye wax jooju dëgguwut wérut waaw ñu ne góor moo ñëw siq ak moom kon kay ñoom jiñ nañ tuuma sayd saydatuna mariam te hmm? yàlla ne walati ahsanat farjaha ka nga xam ne dafa ñoŋal am pëyam ñoŋal am pëyam walati ahsanat farjaha allahu akbar yàlla moom xanaa yàlla yàlla moom ku nekk xam na ne yàlla lu wax dëgg la yàlla du wax lu dul dëgg hmm? te yow mën ngaa gën a xam yàlla mënoo gën a xam suñu borom tabaraka wa taala bay wax naan góor moo ñëw sëy ak moom bay indi sax ay tur na na tudd hmm? loolu wérut li alxuraan wax mooy dëgg keneen ku wax lu wuuteeg alxuraan li nga wax du dëgg man Abdul Ahad maa ko wax waaw ah. li alxuraan wax mooy dëgg li yàlla wax mooy dëgg keneen ku wax lu wuuteeg li yàlla wax li wuuteeg li alxuraan wax du dëgg man Abdul Ahad maa ko wax ndax alxuraan moo ne wallati ahsanat farjaha ka nga xam ne dafa ñoŋal pëyam ma maandu jub ragal yàlla téye boppam fa nafax fa nafax naa fa nafaxtu waliti astanat farjaha fa nafax naa fiiha min ruuxina la alquran fa nafax naa ñu daal di ñëw ëf fiiha ci biiram min ruuxina suñu ruux yàlla jël ruuxam def ko ci saydatuna Maryam waaw fa nafax naa fiiha min ruuxina yàlla ne wa jaalnaaha wa ibnaha ayatan lil alamina yàlla nee na ma def saydatuna mariama ak doomam ja ñi ay kéemtaan ci mbindeef yi yow nga bëgg a dàq loolu nga bëgga a wedd loolu bëgg a dàq loolu soo ko dàqee rek wedd nga yàlla wedd nga waxe suñu borom tabaraka wa taala yow bokkutoo sax ci jullit ñi yéefar nga sax ci jullit ñi nga ndax yàlla moo wax loolu yàlla moo wax loolu te li yàlla wax mooy dëgg wallati ahsanat farjaha fa nafaxnaa fiiha min ruuxina ka nga xam ne dafa dafa ñoŋal am pëyam ñoŋal am pëyam sàmm takkab séram ba mu dëgër jub ragal yàlla yàlla gis ko may ko doom ci lu dul muy am boroom kër lu dul muy séq ak génn góor yàlla moo ko wax wala boog li yàlla wax daa amut hmm? fa bi ay hadiisin ba'dallaahi yu'minuun ginnaaw wax yàlla jan wax ngeen di gën a gëm fa bi ay hadiisin ba'dahu yu'minuun ginnaaw waxi suñ borom jan ba jan jan wax ngeen di gëm fa bi ay hadiisin ba'dallaahi wa aayaatihi yu'minuun ana jan wax ginnaaw wax yàlla ak i kéemtaanam moom ngeen di gëm hmm? dafa leer nasul quraan yi ci suuratul anbiyaa yi boo demee danga ko fekk ci suuratul anbiyaa yi boo demee ko ci fekk wallati ahsanat farjaha fa nafaxnaa fiiha min ruuxinaa yàlla nee na dafa dafa Mariama dafa ñoŋal am payam takkab séram ba mu dëgër musta mooy yàlla ma gërëm ko ci loolu fa nafax naa fiiha min ruuxinaa ma jël sama ruu sànni ko ko ëf ko ko wa jaxal ma def ko wam naha ak doomam ja aayatan ñuy kaawteef lil aalamiina ñeel mi def yi yàlla ko hmm? yàlla na inna haasihi ummatukum ummatun waaxida xeet wii wenn xeet la waa ana rabbukum man maay seen borom faabuduun jàmm leen ma wa taqattoo baynahum amrun kullun ilayna rajiun yàlla nee na lépp ci man lay dellu si kullun ilayna lépp ci man lay dellusi kon yow alquran wax lii nga wax leneen wuuteeg waxi alquran ma ne ku wuutee waxi suñ boroom yow la nga wax du dëgg la yàlla wax mooy dëgg waxi suñ boroom mooy dëgg te lii la yàlla wax yàlla moo jël jibril saydina jibril yabal ko ci saydatuna maryam jox ko ruuxam mu ñëw ëf ko ko fa nafaxnaa fii a min ruuxina waaw mu dellu waxaat feneen ca suratu nisaa wa ruuxun minhu saydina isa du ruu goo xam ne mu ngi tukkee ci suñ boroom dugg ci ci biir maryama eh, yaayam ëmb ko matu ko imbi ko muy saydatuna muy saydina isa alayhi salaam moo tax mu ne inni abdullahi ataani alkitab ngoog moo tax euh, kerab bi nga xamante ne bi saydatuna mariama imbi ne saydina isa ah kerab ba mu koy imbi sax ma ngay ragal gàcce moom saydatuna mariama banaan yàllay te nii mittu qabla haza wa kuntu nisyan mansiya ak a neexoon ma dee njëkk lii maanaam ak a neexoon balay doom ji génn man ma faatu yàlla laytanii mittu qabla haza wa kuntu nisyan mansiya ma nekk di ku ñuy fàtte ak fàtte allahu akbar ndax lan ragal gàcce su fekkee ne woon moom dafa njaaloo kon kay du ci ragal gàcce du ci bëgg a deyante hmm? waaye katt nag suñ boroom ak attee suñ borom ak dogala suñ boroom kéemtaanal yàlla la yàlla feeña foofu yàlla bind na sayyidatuna bind na aadama ci amul ndey amul bàyyi yàlla bind na aadama ci amul ndey amul baay mu bind xawaa mu am baay ci amul ndey ndax ci aadama la ko jëlee yàlla bind na ku am ndey ci amul baay muy say muy saydin muy saydina isa alayhi salaam bokk ñu bokk yàlla ah moo tax keroog bi mu ko bi mu ko bi mu ko indee laxas ko dem ci nitam ña ban dañ na ko min ay ni lakki hada lii foo ko jëlee ah yow Mariama indi nga lu rëy de laqad jita shay'an imra indi nga lu rëy indi nga lu garaaw a garaaw maa kaana abuki imra imraata sawi wa maa kaana ummuki baghiya sa baay doonutoon ku bon sa yaay doonutoon koo xam ne dafay joxe boppam yow lu tax nga def lii mu joxoñ leen insa ne leen wax leen ak moom ñu ne ko kayfa nukallimu man kaana fil mahdi sabiyya naka la ñuy wax koo xam ne mu ngi ci lalu bertoom ci la insa jóge joxat ba ne ne inni nii ma ngay dégager wax giñ ko nar a wax yow kat doomi yàlla nga wala waxtu wax giñ nar a tuumaal suñ borom ta giñ tuumaal yaayam mun ne inni ni abdullah ataniyel kitab man ab yàlla la yàlla jox ma téere yónni ma digal ma nag ma def njëkk ci sama yaay ji wa baram bi waalidé bi waram bi waalidé ji wala wa baram sama yaay sama sama sama sama yaay gi yàlla euh, euh, defal ma njekk ci ma def njekk ci sama yaay ji bokk ñu bokk yàlla naka la ñuy jànge alxuraan te duñ ko gëm li yàlla wax dëgg la ma ne li yàlla wax mooy dëgg keneen ko wax lu wuute li yàlla wax yow sa wax joojee ma nga ca àll ba kenn du la dégg ab baan mansuur la bokk ñu bokk yàlla kon mbokk mbokk yàlla Seydina Isa lool mooy ak sababam ruu la goo xam ne mu ngi tukkee ci suñ boroom di kaddoog suñ boroom lu tax muy kaddoog suñ boroom muy baatub kun ba la yàlla jëfandikoo ci suñ maam Adama moom la jëfandikoo ci Seydi Seydina Isa moo tax mu ne inna inna inna masala Isa inda allah ka masala Adam xalaqoo min turaab suma xaloo kun fa yakun masa misaalam ca yàlla mi ngi mel ni misaalam aadama yàlla dafa bind aadama ci suuf ba noppi na ko kun fa yakkoonu mu daal di nekk insa it suñ borom ak xam la jël ëf ko ci saydatuna mariama ne insaa kun insa daal di nekk moo tax mu ne inna masal insa indallahi ka masal aadam misaalam insa ci yàlla moom misaalam aadama ñoo yem képp waaw lu tax nag nasaraan yi kon ñoom di wax insa doom yàlla ci waxuñu aadama doomu yàlla ba addinay tukki wax aadama doomu yàlla de du tax lool te ñoo yem Insa ak Adama ñoo yam ni ni yàlla jëfandikoo ci suñ mam Adama noonu la jëfandikoo ci suñ suñ suñ suñ maam eh, Insa hmm? fee ba kee kun la jëfandikoo fi moom mu nekk moom it kun la jëfandikoo fi moom mu nekk hmm? donte Insa moom am na yaay ci Adama moom amul yaay amul baay waaye ñoo yem rek ñoom ñëpp jëfi suñ borom lañ tabaraka wa taala yàlla moo leen bind yàlla moo leen amal ñuy ay jaami suñ borom tabaraka wa moo tax. moo tax yonent bi sallallahu daana wax laa tatruni kama atruti nasara isa bnu maryam innama ana abdun fa qulu abdullahi wa rasulihi الراوي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه المحدث ابن باز بوك ني بوك يالا بوك ني بوك يالا يونتبي صلى الله عليه وسلم tag ma ci façon tag bu la man nga ko tag sa yonent lu la neex wax ko ko waaye rik waay laa tatru nii bu leen ma tagge bu leen ma sigiréel kama atrati nasara comme nasaraan yi ni doon tagge di sigiréel ibnu mariama doomi mariama mi isa innama ana na ngeen xam naka man day abdum ab jaam la man yonent bi ab jaam la fa quulu wax leen abdullahi jaamab yàlla wa rasul wa rasulihi te di yonenteem allahu akbar wax leen ma man jaamab yàlla laay di ndawal yàlla waaye bu leen ma di sigireel di ma tagg kom ne nasaraan yi daa tagge Isa ba ëppal ci naan Isa doomu yàlla la man bu leen ma ko def de man na ngeen ma wax abdullahi jaamab yàlla wa rasuluhi te dib yonenteem képp yem leen foofu man muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax ak njaam dara gënu ko foor mboolem yonent yi ay abdu te ñoo ëpp ay garaat ci mbindéef yi mboolem ñitti yàlla yi it ay seen bopp ndax koo ci dem ci mbindam danga koy fekk ubaydu rabbihi ubaydu rabbihi njaamas ñoom bañ nañ ko ba dañuy tasxiir sax seen bopp njaamas yàlla si ubaydu rabbihi yow ne nag ngay ngand ngandalu di rëy rëylu di yëkkatiku yëkkatikulu jàpp na asamaan si su doon wàcc nga aw ko xamoo dara dara xamoo soo xamoon danga nga da da nga wàcc sa bopp doon jaamob suñ borom tabaraka wa taala toroxlu suñ borom tabaraka wa taala loolu mooy tax nga am li nga bëgg tey am ko ëllëg defoo ko suñ borom tabaraka wa taala nee na al kibriyaahu wal azamatu radaahi fa man nazaani minhuma xasaftuhu fi naar wala ubali yàlla nee na ngand ngandlu màgg màgglu rëy samay mbalaan la man yàlla maa ko sàngoo ku ko xëccoog man rek danaa la sànni biir safara ca sama yoon du ca nekk bokk ñu bokk yàlla kon bokk ñu noonu bis baa ngoogu ñaan ngaa ngoogu xadis baa ngoogu ki ko doon leeral seen soppali ci yàlla Abdul Ahad aqulu qawli haza wa astaghfirullahu li wa wa sairil muminin wa rahmatullahi taala wa barakatu ba la ñàkk abonnez sur notre chaîne Dahiratoul Fadly abonnez kuñ fornome war ngay sant yàlla ñun lay tijil kese la doom si di baram